Balla maa lay ziar ginnaaw ma sant yàlla julli séenante bi di sant sama ñaari waajur xam ma di ñaanal sama papa fu mu nekk yàlla na ko yàlla gënal fu mu jóge ak képp koo xamante ni dem na di ñaanal yàlla sama yaay ak képp kuy waajuru jàmbur mu yàgg fi ak ñu may àndal waa di nuyu waa Touba sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke maa koy nuyu bu baax di nuyu waa Ndindi di ñaanal xalifa généraux yëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm may leen wér-gu-yaram ak gudd fan di nuyu waa Canaba di nuyu xalifa bi Canaba di nuyu xam ay njabootam di nuyu waa Tiwaawoon di nuyu waa Njaasaan di nuyu waa laay laay laay xam nga di dëkk Ngor maa leen di nuyu bu baax waa di nuyu tamit xam nga ñu ma fi fekkal di leen nuyu yenn presse bi ndax kenn amul seen fay waaw di nuyu xam nga waa Médina yëpp maa leen di nuyu Médina Fass Gueule Tapée Colobane xam nga Rëbës xam ma ñaay ba ñëpp maa leen di nuyu xam ma ndakaaru yëpp maa leen di bëggee ak waa Médine waaw rawatina nag fu ma dëkk waa Kusum waa Riseng maa leen di bëggee bu baax a baax waaj naa ko ak samay mbokk waaj ko ak samay entraîneur sama waa écurie ku si mel ni sama papa Kayre mention spéciale waaw maa koy nuyu bu baax a baax jàpp na si man du ñaanal tamit mbëri nekk écurie Soumbédioune sampion yëpp ku si mel ni sama turandoo Diène ñoom mañi xam ma ak ñoom abada mbër yi nekk foofu yëpp maa leen di ñaanal jàmm ñu am ndam ak suñu waa saal xam ma ku si mel ni grand maam Thierno xam ma sama coach si aas képp koy ni immobile kebe rek maa leen di nuyu bu baax a baax di nuyu maam Thierno taalibi sëñ Abdou Karim di nuyu sama papa Abdou Salaam comme ni ma ko doon waxee sama grand Mouma Naar sama mag Bas xam ma maa koy nuyu bu baax ak ñu fi nekk ak ñoom Sidi. ñoom Koutia xam ma ku si mel ni Fada Loof xam ma xam ma ku si mel ni sama grand Bas ku si mel ni xam ma ñoom tubaab xam ma dañuy sonn si man xam ma Tafa Cissé xam ma ñoom laay xam ma sama boy dañu jóge ba yëmbal ñëw fii pour combat bi ñoom Matar waaw maa leen di bëggee ak Kalilu bu baax a baax waaw. léegi ñu ñëw ci. man dafa am fu ma war a dem man maa koy remercier bu baax na gàkku de ndax champion la toog naa deux ans bëréew ma ma ñëw xam ma moo ma njëkk a may xaalis bu may yóbbul sama yaay ak Assane Ndiaye promoteur maa leen di sant yàlla bu baax a baax mais nag dina ko wax ne ni xam ma nii yëpp ay gaan la ñooy lii sama yaay dafa seetaan la signature bi sax mu ne bul wax lii bul wax lii xam ma làmb moo leen boole xam ma ñoo bokk ndax Sénégal sama waay la mais jouru làmb ji nag amul waay arbitre bu soufflé maay sa kaw waaw di ñaan yàlla yàlla ma yàlla may ndam bu sedd guy ci barki sëñ Fallou Mbacké champion la ko quoi avant tout hina damay nuyu sama mbokk yi di nga leen nuyu waaw hina hiwraade hmm. kala ko ɓiɗɗo pulla fouta woni hina hiwraade ɓe hina hiwraade waa gine fof ko ndaara kamma bi komi woni toon kañum maate popodara timbi madina kamma e eh, kulam mawde komi jannguno toon pay komin komin komi taaliba maɓɓe ko ɗon mbenamunoolon jannde hina hiwraade ɓe fof amba kala ko ɓiɗɗo pullo fouta woni hina hiwrade ɓe hina hiwrade wa sandinieri bo ba koto jeego mi yii ko watton ko fof mi weltike ak mamoudou six avenir maa koy bégee bu baax sama mbokk la xam ma di nuy képp koy pël fuuta maa lay bégee waa di nuyu tamit sénégal waa sénégal moom aw ma seen fay wallaay azim waaw ma aw seen fay quoi waaw mm-hmm. waaw booy gàkku dë. waaw digganteem ak ndongolo. waaw seetaan naa ko. petit ña. seetaan naa ko. xale yi mu freiné. naa ko gis nga kii taxaw nii sama mag bii Sidi moo tax ma dugg si làmb. Hmm. yaa ngi dégg. daf ma newoon dinaa bëre ak Fourrière te boobu man ak moom mbalit lañ dugg pour ñu seetaan leen. amuñu woon paas ay booy ndaw lañu ñu ñu maye porte yi ñu dugg mu ne ma yaa kii di ngeen bëre. mu jékki-jékki neewaat ma yow gàqu dee même làmb di ngeen di bëre ji ak ndongoloo sital na ma ndongoloo hmm. mais ñaari adversaires yi ñëw nañ Fourrière ñëw na am na fu ñuy jaar gàqu dina ñëwaat samedi insha allahu rabbi dina am fu ñuy jaar waaw yaa ngi sóoraale gàqu ci xeex bi kan man hmm. man armée guerre laa jëm commando yi ñoo ma waajal beere vert waaw ñoo ma waajal pare naa fépp waaw kenn nag du dem guerre di wax xam ma escar yi ngay teg affaire yooyu noonu Père Kayra wax na ma lépp amatuma lu may wax. dafa la jox kele bi. waaw am am xam nga booy dem guerre dañ lay tegal taabul xam nga woo militaire yëpp toog ñu bindal la fii ak fii ngay jaar xam te kenn du ko yëg yéen yaa leen koy yëg ñu biir mais incha allah bu taxawee dina xam ne nii xam nga plan bu ma jox incha allah dinaa ko exploité waaw. combat bu gaaw bëri ak waaw. wala nga yóbbu combat bi à l'usure. <laughs> moom moo doon ne combat yi daf may yóbbu à mu jékki-jékki naan combat bu gaaw la comprendre nga mais moom na taxaw dëggal boppam rek taxaw dëggal boppam rek. bu taxawee dëggal dëggal boppam di nga xeex ma jël lu ma moom. andil ko waa Medina. gàkku de ngay waxal te waa Medina genre dañoo namm ndam. waaw te incha allah yàlla def na nag am na ay mbër yu bëri fi nekk. mais yàlla si man la ko jaarale échant yi waa 1000 pour cent bi waa Medina di leen sant di leen gërëm di nuyu xam ma mbëri fa ñëw yëpp suñu mag Gris Bordeaux Serigne Ndiaye xam ma kii Forza Ibu Afia xam ma ñoom Mañik ñoom Pakola sama booy jóge ba Pikine ñëw xam ma ñoom Pakola xam ma maa leen di bëggee bu baax a baax waaw ñoom Forza 2 gis naa mbër yëpp xam ma ñoom Njaga Faas ñoom ibo Afia ñoom Mbay Guy gi sama mbokk Bawol booy lii nag maa leen di nuyu ku si mel ni ñoom kéwél mbay guy gi xam ma maa leen di bëggee bu baax pour sin ñoom ñëpp ñëw nañ waaw maa leen di bëggee bu baax waaw di nuyu Mame Ngor Samb ak per Khadim Balla Gaye nañ ñëw jàppale ma ak ñoom Père Sall parce que xam ma ñoo ma doon député quoi ak sama papa Mbaye Diouf maa ngi nuyu képp kuy bawol bawol maa lay nuyu xam ma di nuyu tamit xam ma sama gars yi nekk France per Aba Thiagne Père Idi maa lay bëggee bu baax per Bamba te waa France dañ ma ubbi fan si club foofu ñoom Mbacke ñoo ko géré xam nga ñoom Bukari xam nga ñoom alin Ndiaye ñoo ko seere waaw ak waa Suisse waaw xam nga tamit nit xam nga boo bañee fu nga dëkk dafa fekk nga gën see ñaaw te man sama maam xam nga ñëpp xam nañ ko fii xam nga jàmbaar la quoi wallaay azim te man awma lu dul dereetu pël Fuuta waaw mais tamit fii laa xam yàlla moo dogal loolu senegaal laa xam xam ma fii laa nekk xam ma mooy gis samay mbokk bool bool xam ma sama mbokk séeréer maa leen di nuyu xam ma di leen sant bu baax a baax di teg nuyoo bi sama papa loxo papa Duudu Ñaan ak père giran ak waa Jaxaaw Siin père Ibu Kama maa leen di bëggee awma seen fay waaw nañ si jàpp bu baax ak waa Tuubaa yaa ya, per waaw gis nga alxuraan boko ko day nek sa bop mais boko li liyee rek mun nga li mais boko ko teewaatee bi di jang lepp dina nek sa bop lol sama papa Kayre momako ko jox te sama papa Kayre amul kuko ko beure ci si champion la mo fi ëpp ay victoire kon xam ko ko xam na làmb xam nga lamb te man dafa dem ba ne mbeur arrêté parce que dama contane si yow pare nga. waaw macha allah ma lu may hésité yàlla nag moo am ndam moom moom ndam man yàlla laa yaakaar yaakaar xam ma yaakaar yàlla ñu may ñaanal te lépp tamit damay ñaan lu gën si man waaw maay ñaan yàlla yàlla ma yàlla may ndam bu gaaw waaw ah waaye Balla Mbuub ñaata ar ñaata combat nga ma arbitré bëre dóor xam nga moom day wax quinze combat la am bëre dóor mais nit ki mun nga am cinq combats bëri yegg si kaw di daan ay ponkol man xeex man loolu lañ may tiital saa pour ma bàyyi xeex dem bëri ji waaw mais sport la lu mu guux mooy fii neenaa la armée de guerre dama pare lépp takk samay saak takk samay déguisement lépp. kon bu la déggee bu baax mooy combat da nga ci préparé ci xeex. man sa adversaire xeex kat. non bëre la ñu wax. ku nekk ku xam ne ni bëre dóor la ñuy wax bu àndee bëre ma duma ko bu bu ma daan ko waaw incha allahu rabbi waaw gàqu dee Ibrahima Seck waaw man sama retour du yow yaa may téye barki alaaji fàllu war na sëñ Abdou Karim Mbacke incha rabbi boo taxee ma duma la boo bëree ma daan la maa la ko wax incha allahu rabbi xam tamit xam nga tamit damay wax tamit lenn xam nga jour signature bi wax naa ko man double nationalité la xam nga nationalité yee xam nga comprendre nga waaw xam nga rek man buñu ma nee dama jàngi dama ne yaay garaawul baa ma dem dóori waa liggéey doole waaw dem bëre xam nga moo tax waaw mais ay ay rek ñoo nekk sama ginnaaw double nationalité guinéen sénégalais te jour làmb ji du ma ëppale dara waxoon naa ko lii rek open press war na ko findal di tamit di woo waa Géejawaay sama papa njaga maa koy woo waa Kër Naar yi waa Arrêt Duba Lees maa leen di bëggee bu baax xam ma moom dafa neexoon man dama demoon liggéey géej a waa am na benn interview bu mu wax mais man kooku sama grand la sama papa la fii la doon nekk moo ma doon yóbbu foofu may fanaan di entraîner seen tefes bu